asalaamaaleykum ma nuyuwaat leen tey damay ñëw ak yéen ci cag-cag yi ndax phénomène la bu bari ci réew mi ci at yi ñu génn laataa ñu naan cag-cag nag ci biir ndakaaru fekk na booba phénomène u jagartaa lawoon daanaka fépp ci réew mi bari na nag ñu leen di joxeñ baaraami tuuma ci mbir yu bari ak di leen sikkal du ma setal kenn ndax nekkuma fépp mais nanu ci def attention bu baax parce que domaine boo dem ci àdduna am na ay bukki yu làmboo deru bëy bu ñii di gàmmu ñii di rasdim ni mu amee ci cag-cag yi noonu la amee ba ci ñi ñu faral di jox bopp muy politiciens yi bu amee ñuy jubal ci ñoom bari na ñuy dëngal di luubal loolu moo tax foo tourné dégg rapport ak épinglé li am solo nag mooy xool lu jur phénomène cag-cag wala jakarta ndax lu ci nekk rek xool cause da cee baax laataa ñuy xool conséquences ya mu am ci ñaari côté yépp bi njëkk mooy at yi ñu génn bari na ay ndaw yu songu mbëkk mi ba ñàkk ci seen bakkan rien que ci diggante 2021 ak 2022 rek ñetti téeméer fanweer ñetti migrants sénégalais ñoo faatu ci ndox mi ndax bëggoon na wutali bitim réew bu nu sukkandikoo ci rapport bu organisation internationale des migrants fësal waxuma la ak 2023 bii nga xam ni daanaka semaine bu jot luy tolloog fukki nit faatu ci ndox mi di ay ndaw mag góor jigéen ba ci ay liir yu tooy xib ku dem Bargny Fass Boye ak feneen fekk fa ñu ba tey di jooyte noppeeguñu mbokk yi lii ndaw ñii ba ñu songu géej gi te mu leer leen ni dee xaj na ci mooy chômage bi ñàkkum liggéey gi désespoir bi maanaam ñàkk yaakaar gi ndaw ñi ñàkk yaakaar ci réew mi injustice bi am ci administration bi kumba am ndey kumba amul ndey gi jàng ba am diplôme boole kook man li ngay def ñu ñu la toogal nele mokkal nga waaye amoo mbokk xamuñu la da ngay xaar li poussé ndaw ñu bari ba ni jël gaal gi di faatu moom la yeneen ni ndaw di dund ci réew mi waaye ñu ni jaru ko nanu toog suñu dëkk te liggéey tax ñu kër kër yi ba am seeni moto walla jagarta fas yéene càq-càq ngir am lu leen dundal ak lu ñu yóbbu seeni kër càq-càq bari na lu mu yombalal liggéeykat yi muy entreprise yi ak ñiy nekk ci vente en ligne bi wala ñiy xëy liggéey ndax dëkk bu xat bi ak yu bari yi nga xam ni war nañ ci wut ay solution yu durable lii nag day ni at yi ñu génn moto càq moo xam jakartaay wala yeneen moto yi bokk nañ ci ñu ëpp lu ñuy employé ci réew mi ndax ndaw ñu bari si la ñu nekk di daan seen doole te loolu it luy xeex chômage bi la. léegi nag li am solo mooy fexe ko encadré ba ñu xam kan mooy kan ak kan mooy def lan wutal leen ay immatriculation yu leer luy tax ñu mën leen ràññeetle te mu nekk condition yoo xam ni bu ñu ko tegee it ñëpp respecté ko te takk der yi ko war a saytu bañ a def ni ñuy def ak oto yi. encaissé xaalis gumba ci infraction jël sa bët teg ko ci benn 1000 francs dara jëru ko waaye na leer képp kuy mbuboo càq-càq wala ngay boole càq-càq ak ñaawteef di agressé ak këf téléphone jàmbur di def lu la neex ci kaw tali bi na yoon def liggéeyam ci sa kaw te teg la ci yoon teg la daan yu tar ndax ku bëgg a defar wuroo yàq te liggéey it àndu takki caaxaan yéen ñi nekk ci milieu bi di ci liggéey di ci gis seen bopp bu leen nangu benn sàmba boy ñëw di ko yàq baa di leen taqal bañ leen loolu bu ko jaree ku ngeen ci gis ngeen dénoncé ko ba ñëpp xam ko beneen bi ci des gouvernement bu bees bii ñoo ngi leen di xaar ci ay solution yu wóor ci chômage bi ak jafe-jafe yi ndaw ñi di dund ñu gaaw faj ko maa ko wax boo dégg maa ko defay njégam ñu ëpp ci ndaw ñit am na yaakaar ci ñoom kon yaakaar wóorut a yekki ko te borom càq-càq yi bokk nañ ci ñiy génnoon publiquement ni dañuy soutenir candidature Bassirou Diomaye fay ndax am yaakaar ci moom ak projet bi mu porté loolu nag président bul ko fàtte yaak ñi nga àndal ngi leen ciy xaar ñoo ngi leen di déglu te it ñoo ngi leen di may gën am na it ñu may wax ngir ma àddu ci étranger yiy dugg ci cag-cag bi ndax nee ñu dañuy yàq marché bi lenn laa ci mën a tontu bu nu organisé wul suñu biir ba lépp normal keneen ku ñëw ci désordre boobu ñu nekk ci la ñuy fekk si ndax uude ni mu la gisee rek la lay kon autorité yi ak ministre tutelle bi nañu réorganiser secteur transport bi ba mu normal su ko defee ku ñëw mën a tegu ci loolu su boobaa ku deful loolu nag ñu mën la teg ci yoon ndax balaa nga naan naam ne fa Afrique ku fi wax lu dul nanu booloo déggoo royoo Cheikh jóg si boo jamono ñun personnellement du ñu bodd kenn ku jóge feneen ñëw ci réew mi di liggéey ndax noonu la ko sunu doomi réew di defee ca bitim réew ba mu jaral leen sax di jël gaal ngir rek bëgg a teral seeni famille réew nag bu organiser woo ku fa ñëw organiser wu ku weddi lii laajal ñu nekk bitim réew ba xam lu leen neex def wasalaam ba beneen yoon ci beneen